li ma waxoon démb ci dese bi muy Aziz Dabala chaque jour su ma génnee wax rek saa yu ma génnee wax rek ay nit danan tiit saa yu ma génnee wax rek ay nit danan paniqué man bëgguma kenn mu tiit bëgguma kenn tamit mu yaakaar ne dama ne maanaam moom moo rey Aziz Dabala mais li may wax damaa bëgg mu pertinent mu pertinent gars yi man koo xam démb damaa tudd nday yirim ma yeewu suba te ma téléphone bi du tam ku ne di ma woo bari too vocal ma naan ma nday yirim ni mu baaxee ah li ngay wax xoolaat ko démb ba tey mi ngi jooy nday yirim looy jooy yow rayoo di jooy Aziz Dabala gars yi ki ko rey ki rey Aziz Dabala ku ko jege la ku jege Aziz Dabala la ku ko xam la compte TikTok bi supprimer na ko ma ñëw Babacar man lay woo supprimer na compte TikTok bi mais compte TikTok pour nga supprimer ko da laaj mot de passe da ngay dugg mu ne la defal mot de passe bi boo defee mot de passe oublié da lay envoyé lien ci email bi wala mu yónnee la ko ci numéro bi ay mbokk ñu ko jege ñoo ko rey. léegi police li mu war a def ci liggéeyam carrément li police war a njëkk def dama bëgg police yi ngeen déglu ma li ngeen war a njëkk a def ci àdduna xam nga mooy lan te Nabou Leye dañ koo war a arrêté Ndeye Yirim dañ koo war a arrêté Boga dañ koo war a arrêté borom casquette bi dañ koo war a arrêté borom tent bi nga xamante si nii moo waroon a gisanteeg moom ñu ànd dem màggali dañ koo war a arrêté six personnes yi ba enquête bi leer kenn waru cee génn lii mooy defuwaaru police première ñi ñëpp ñëpp ñi ma lim fii ñëpp dañ leen a war a téye ba enquête bi leer kenn waru leen bàyyi mbaa policier yaa ngi may déglu ma répété police yéen laay waxal ni waxuma ak askan bi dama ne seen liggéey première devoir bi ngeen war a njëkk a xam nga moylan lan na Nabou Leye arrêté Ndeye Yirim arrêté Boga arrêté borom casquette bi fa jëwoon dimanche arrêté borom tent bi nga xam ne déggante na ak moom ñoo waroon a ànd dem màggali six personnes yi dañ leen a war a téye ba enquête bi leer police fii nii lay liggéey man bu ngeen ma bàyyee cas bi léegi dossier bi leer barki Serigne Babacar Sy man samay wax mooy pertinent du ànd ak ay fen lay ànd ak gëstu man du ma ñëw rek di wax de déedéet kële nee na 19h ba 19h ci ngoon ci dimanche bi 20h mi ngi woon kër Aziz te Nabou Leye moo yóbbu Aziz hôpital Nabou Leye moo togg añ bi nu lekk samedi nday yirim nekkoon fa boogaa nekkoon fa ki leen vidéo quatrième personne bi pour man dafa menacé Nabou ne ko boo génnee wax dama lay rey parce que quatrième personne bi xam nañ ko kooku rek moo mën a yeewi sénégalais yi maanaam bu nu xamee kan moo def vidéo yi quatrième personne bi vidéo dana xam ki rey Aziz Dabala sama wax dafa war a leer kan la na moo ko xam na boo ko xam parce que na boo leen doon vidéo mu ne nga lañ tëdd écarté ay tànkam Aziz Dabala yor kaasu kafe waali toog ci wetam kan moo doon vidéo vidéo yi du dëmb de du ndóoxóor déedéet ko de jaarul ci balcon yi tëj fenêtre yi fenêtre yi ci fa rey ko de déedéet ki rey Aziz Dabala ñoo toogoon dañ doon waxtaan c'est la famille ñoo nekkandoo woon di waxtaan comme famille mu ñëw ubbil ko kër gi mu dugg ñuy waxtaan nekkandoo fréquentation ba rey jóge ci nii la rey bi demee rey bi du lu ñëw agressé wul ko de déedéet kii agressé wul ko ay xaritam ay nitam ñu ko jege ñu ko sës xam ko ñoo ko rey kenn dajjiwul buntu kenn dajjiwul fenêtre kenn sàccul jàll kenn jaarul ci miir kenn tëbul fenêtre den danoo wax ak Aziz xam ne ay xaritam la mu ubbi bunt bi ñu dugg ci biir mu muur accueillir leen comme ami accueillir leen comme frère ñu toog di waxtaan ba dee am ca nii la lépp demee bu police bëggee am lu ko leer kenn jaarul fenn nii la demee rey bi dafa am ay complexe ñaari nit nanu rey ñaari nit kenn nit mënu leen a rey ah ah kenn nit mënut a rey ñaari personne balaa ngaa rey keke ci des dem ay complexe la am rey bi dañ koo tëgg groupe la du nan dugg ci biir xaritam téléphone yi sàcc nañ ko ku dee nooy tontoo commentaire démb ba tey ñu ngi leen ci commentaire yi démb ba boo nee Nabou Leye ko rëy Nabou Leye daa war a génn laay wala eh kii borom kaskat bi wóoluwuma ko ñu supprimer commentaire bi ci saa ci saa si da ngay gis sa commentaire day de tey ñu xëy ñu tëj po compte bi waali ñu désactiver ay commentaire am xaw ma activé nañ ko nit léegi yow pour nga désactiver compte jàmmoor dañ lay envoyé mot de passe sa numéro téléphone wala sa email loolu rek moo mën a tax nga désactiver ko kon c'est la famille eh ñi rey Aziz Dabala génnul ci ñooñu taqaluma kenn mais police da leen woo ñoom ñëpp mu dajale leen tant que enquête bi leerul bu kenn génn nii la ñuy liggéeyee c'est facile eh lii da ngeen ko teg lu difficile difficile de ak a yomb ak a yomb. pour ñu jàpp ñi nekku lu difficile de lu yomb la ñi ko fréquenté woon jour boobu yépp maanaam fi ni commencé mooy Nabou Leye Nabou Leye dañ koo war a arrêté jàpp ko waxuma ñu tëj ko de ñu arrêté ko borom tent bi ne woon déggante naag Aziz balaa ba jeudi lan waroon a départ wala samedi dem màggali dañu ko war a arrêté Nabou Leye mooy benn borom tent bi mooy ñaar borom casquette bi mooy trois na yiri ma fa añe dimanche ñu woo ko boogaa ñu woo ko ak quatrième personne bi doon vidéo vidéo yi na mu lay wax ñu kan la ndax ñoom rek ñoo ko mën a xam ñaar ñeneen deenan man mënumaa dem ca bàmmeel ba di fëgg Aziz naan ko Aziz jógal waali jógal wax ñu kan moo leen doon vidéo ku dugal vidéo yi déedéet na mu lay doful deewul ña la ñoo dee deewul moom moo fi nekk nañu wax quatrième personne bi moom moo mën a yeewu sénégalais yi quatrième personne boobu moom moo wane yeewi sénégalais yi ñu sukkandiku ci enquête bi xam kan moo rey Aziz ñan ñoo nekkoon ci kër gi ñëpp lañ bëgg a xam la du dëgg ba pare dañoo jël compte jàmmoor retire ci ay wave compte Aziz Dabala dañ cee retiré retiré ay wave léegi na police xoos yi ki def lii ku jege Aziz la ku ko xam la ah ah Aziz daa baax rek ndeysaan ku bëgg fréquentation xam nga boo ñëwee salaamaaleykum seen doomu ndey nangam xam nga ñu tëjjil la bunt bi ah ah Aziz buñ ko doon agressé rey bi du demee noonu ah ah buñ doon agressé Aziz toj vitre la ñuy def bam dugg ci biir jaxas jaxase ndeyu kër gi doo koy rey buñ doon agressé Aziz bunt bi la ñuy daaj ji dugg ci biir fërët fëritee lépp daal di koy rey déedéet kii dafa toog di waxtaan ak moom comme ami ki rey Aziz comme entre ami la comme sama xarit rek man samay meilleur ami ñi ngi fi buñ ma woowee dama naan bunt bi tëjuwul dugg leen bu duggee ma tëj togg añ nekk ci waañ bi ñëw servir leen ñu toog waxtaan xam nga bari na ci ay morom foofu la rey gi commencé kenn agressé wu ko ay xaritam ay am di jàmmam ñu may fréquentation ñoo tëgg lii nekk ay complexe rey Aziz Dabala nii la demee bu dama ne la ñii ma ma jàppaloo police yi bu leen jàppee dinañ xam ko ko rey mooy Nabou Leye borom tent bi waroon a dajeeg moom boogaa ma fa añi nday yirim ñii ñiy segg dañ leen a war a téye jàpp leen tant que bi leerul waruñu leen a bàyyi maanaam tant que ku ci daqee ci diggante samedi ak dimanche rek yow waroo sax am jàmm tant que bi xamuñu ki rey nii la di liggéeyee. maanaam euh, bu dee wàllum nabu lay moom. li mu war a leeral moo bëri parce que nag bu moo togg añ bi nu añee samedi li mu war a njëkk a leeral nee na moom moo yóbbu ah Aziz Dabala clinique léegi ban clinique nga ko yóbbu ban hôpital la clinique bi fan la nekk ci Dakar a ah, Grand Dakar la nekk a ah, wala Grand Mbaaw wala Jaksaaw wala wala fan nga ko yóbbu ban jour la bu ko defee policiers yi dem laajte Aziz Dabala kañ la fi ñëw samedi la wala dimanche enregistré nañ ko ci biir clinique bi ban docteur moo ko doon seet. docteur bi kañ la yeewi Aziz ne ko demal ñibbi tane nga wala boog da ngay ñibbi toog sa kër jël jël médicament yi bu bu bu normalul nga ñëwaat jour bi leen bëgg a xam exactement samedi la wala dimanche nabu loolu yow rek yaa ko mën a wax. yaa gunge woon Aziz Dabala ba muy jël taxi bi pour ñibbi ba muy jaar ci fast food bi di leb xaalis pour fay borom taxi bi kañ nga ko gunge yan heure nga ko gunge yow yaa ko xam yaa demoon kër Aziz Dabala tag toog difficile le cas bi aka yomba rek cas bi nekk lu difficile de cas bi aka yomba réglé <laughs> ñi rey Aziz balaa ay xaritam nan ku ko xam la nit ku ko xam moo rey Aziz ku ko xam jege ko lool mais nag dafa am ay complice ci biir man sama gis-gisu bopp danoo menacé Nabou Leye ne ko Nabou boo waxee dama lay rey moo tax ñemewut a wax mais Nabou war naa xam ki rey Aziz Dabala Nabou war naa xam yéen nit ñoo nekkoon ci biir appartement bi Nabou war naa xam kan moo vidéo vidéo yi Nabou xam na ban clinique nga ko yóbbuwoon Nabou xam na ban docteur moo ko faj Nabou xam na jour ba mu ko yóbbuwoon waaye ay Nabou moo moo woo grand ne ko waaw deux jours ngi maa ngi woo Aziz mënuma koo jot nan dem maa wax ñu dajji bunt bi Nabou nan wax kan moo rey Aziz sa nan bàyyi jaaxaan yi fii kenn mënu fee couvrir kenn man waxuma Nabou lay moo rey mais samay samay investigation maanaam samay information yi may joxe sénégalais bu ko dégg da ngay xam ne aadama mii waxu nit lay wax buñ ko toppee mu génnee ki rey man nekk waxantuuma de ah ah damaa xam li may wax waxantuuma de taqaluma kenn non Nabou Leye bu bëggee mën naa koo woo loolu du problème naa woo Nabou Leye léegi-léegi ni en live ndax dina jël ba pare yéen di ngeen a xamul benn affaire gis nga Nabou Leye buñ ko jàppoon nii du pour jàpp ko de pour sécurité am la parce que Nabou pour man menacé nañ ko Nabou bu ko police jàppoon day am sécurité bu dëgër moo tax dafa war a nangu sax ñu jàpp ko moom dem jëli ko Nabou en la nekk de ah ah mi ngi en danger bu mag waaw pour yéen nabu mi ngi si jàmm nabu buñ ko jàppoon ni sécurité lay nekk day nekk en sécurité en danger la nekk xam nga lu tax mu nekk en danger en danger weesuwul ki publier vidéo yi jël nabu lay ah mentionné ko dugal ko def ci en danger pour suruxal Nabou Leye lay ne waaw Nabou Leye moo vidéo vidéo yi man après laa ko seetaanaat ma ne man kat xam nga woon bokkuma ak sénégalais yi man du ma nekk di woo nit naan di di di dem rek naan Nabou Leye moo vidéo vidéo yi déedéet damay jàng vidéo bi jël sama téléphone moo tax man bokkuma ak kenn woo Nabou Leye Nabou Leye maa ko woo moom mu ne ma nan laa mën a tëddee ci fauteuil di vidéo nit nan laa mën a tëddee aadama ci fauteuil naan damay vidéo nit di ko dugal man nii la ma ko waxee appel yaa ngi nii mi ngi fii léegi nabu liñ bëgg a xam mooy carte de man ñun nabu liñ lay laaj bariwul man boo ma téléphone yii laa lay laaj duma la saaga ndey du ma la manqué de respect li ma lay laaj mooy samdi yaa toggal Aziz Dabala añ ñi ma jàpp ne ñoom ñoo fa añe te ma xam leen boogaa la ak nday yirim ñoom laa jàppagun te ñoom ñoo fa añeek Aziz léegi kan ak kan ñoo añee ci samedi boobu kër Aziz Dabala benn point bu may la laaj boobu la deuxième point bi boo ma jëlee mooy yow yaa yóbbu woon Aziz Dabala hôpital ban hôpital nga ko yóbbu woon ban clinique la ban médecin moo ko doon seet fan lañ ko enregistré policiers yi def fi def gëstu médecin bi kañ la ko jël pervision bi kañ lañ ko def kañ lan ko bàyyi mu dem ñibbi deuxième demande troisième demande dinaa la laaj nabu vidéo yi dugg ci Aziz compte Aziz Dabala ak Waly kan moo ko fa dugal maanaam kan moo la doon jël waxuñu la ku ko dugal de mais kan moo la doon filmer yow ba nga tëddee ci fauteuil bi kan moo la doon filmer xam nga ki la ndax yaa ngi xoole yor sa ñaari téléphone ñaar ña la génn nañ àdduna mënu ma leen laaj loolu yow lañ koy laaj kese enquête bi leer lii leen soxla ci yow moom lii laa koy laaj soxlawul leneen lii kese jeex na lii yomb na lii kay yomb na ñu ngi may information ñi ñu naan ma tëj nañ compte bi léegi nag police li mu war a gaaw a def mooy jàpp na bu lay jàpp borom kasket bi génnoon naan dimanche fa la yendu jàpp borom tent bi mu naan dañoo waroon a départ jeudi ah ah euh, jàpp boogaa jàpp nday yirim ñoom ñi ñëpp mu téye leen ba enquête bi leer sinon da nga gis ñu daw da nga gis ñoo xam ne dañuy ragal police daw génn fi mu toll frontière kenn waru koo génn ci ñii tant que enquête bi leerul police su Europe lay liggéeyee. na ngeen pare nag yóbbu samay wax naan aadama ne nan arrêté na bu lay dafa rey kii nangam déedéet dama ne lu tax ci samedi bi ba ci dimanche bi ñooñu dañ leen a war a téye ba enquête bi leer ñu bàyyi leen noonu lay doxee enquête waruñoo dox tànkat maanaam rey bi leerul samedi beeg dimanche bi ñi ci tax ñëpp ci Aziz bu ma polis digloo ngoon ngeen xam ki rey na bu lay eh, kële eh, Aziz Dabala bàkki yàlla bu nu jàppee na bu lay jàpp borom tent bi mu waroon a àndal jeudi dem màggali ji jàpp borom kasket bi mu naan dimanche ñoo nekkandoo woon jàpp nday yirim jàpp boogaa ñii ñu téye leen cinq personnes yi jël quelques locataires colocataires yu dëkk ak ñoom ñu jàpp leen léegi kaa bi leer barki alxu xaaral ma woon Abou Lay Nabou Leye ngeen ko mi ngi sonné rek Nabou Leye mi ngi nii di sonné. coupé demee maa ngi lay woo jël ma maa ngi en live direct jël ma nabu bu bëggee lu leer dina dugg ci live bi bu bëggee ñu bàyyi turam bi nii la damaa ba mu yàgg bëri too message ba déglul barito message ma man lu may nit di wax day leer ne ma déglul. boss si noonu yaa ngi ko dem jàmm naa tey mais Adama nga xam ne yëgul ginul nga xam ne da koo jooy ba sonn yaa ngi defati mu amati problème fii nii xam nga sonn bay bëgg dee di jooy ku nekk di ko am na yoo xam ne yow boo koy def da nga ko war a xalaat. da war a xalaat bu baax a baax a baax. ma ne ko kattal sa nday barito man li may wax dama ko maîtriser dama ne nday yi ni mu fañ a añee samedi nabu lay moo togg añ bi ak boogaa falan añee léegi dama leen leen ña ca takk ñëpp nañ leen jàpp ñu téye leen enquête leen ci samedi bi nga naan ma waxuma lay moo kii moo rey de nday yirim de bu dee jooy moo xam man samay enquête dama koy def te damay wax li ma xam waaw. yow pour yéen ay jooy mën naa tax ma arrêté enquête bii lii may def nii mukk bakkan a gën a for Aziz mii ay njabootam dañ koy yaakaar yaayam di mag bu koy dimbali Aziz ku ko xam lu baax reetaan loolu nit ñi lañ ko xamee ak fecc ki mu sa wax lu bon ñu rey ko ba pare ngeen naan ay diwa ngi jooy ak deew a gën a garaaw loolu ñoo ñoo ngi dund kii dee war a tëdd ci suuf xaar àdduna bi tukki pour yàlla àtte kañ lay tukki ñii ngi dee ñii di judd chaque jour ay liir yu bëri judd àdduna bi jeexagul te liir yooyu danoo am chance am ay 40 ans comme ñun wala 50 ans comme ñun mën def fii bu buñ paree ñu génn àdduna ñeneen ñu bees judd àdduna bi kañ lay def nga war a tëdd loolu lépp xaar ko yow lépp tukki ñu doog a àtte looloo gën a métti kuy dund lu sama ci ay jooyam fala añe li ma bëgg a xam daal dina leer mooy ndey mooy nabu lay ba mu toggee añ bi ci dimanche bi moo toggal añ assis ci samedi bi kan kan moo añee ci kër gi bu weesoo ndey yirim ak boogaa ñan ñoo nekkoon ci biir kër gi ñoom fa nekk ba dimanche nekku ñu fa ba samdi de dimanche yaakaar naa lan fa jóge léegi nabu lay tamit nañu wax ban clinique la yóbbu woon Aziz Dabala xanaa am na tur fam ko yóbbu woon xanaa xam na ko vidéo yi tamit nañu wax kan moo ko vidéo quatrième personne bi bu ñu xamee quatrième personne bi dinañ xam kan moo rey Aziz Dabala quatrième personne bi vidéo vidéo yi kooku kooku buñ ko xamee dinañ xam ki rey Aziz mooy publier mooy tontu commentaire mooy désactiver sa waaye ki ko rey da koo xam c'est la famille yéen la ci seen biir yéen la ci seen biir yéen ñi ñaap ne leen police jàpp Nabou Leye na ni njëkkatee buñ paree ci Nabou Leye xaaral ma wax leen police ñi muy jël police ñi muy jàpp laa leen di wax Nabou Leye lay jàpp kii bu paree ci Nabou Leye day jàpp man sama kii yi commencé na bu paree ci nabu lay police day jàpp kii boroom kasket bi bu paree ci boroom kasket bi day jàpp kii borom tent bi bu paree ci dent bi nag boogaa ak ndey yirim awma seen photo fii ñoom ñaar dañ leen a war a jàpp mu nekk cinq personne bu paree ñu dem jàpp quelques colocataires ci fu mu dëkk ci immeuble yi def enquête yi commencé ko nag enquête yu soxor booleeg yu pertinent demande yu pertinent boole ko fëgg taabal ji léegi ñu génnee ki nga xam ne nii moo rey Aziz Dabala du yàgg sax waaw nabu maa ko woo téléphone nabu ne ma Adama man ki yàlla xawma ci dara man kii ma vidéo wu ma man nu ma tëddee nan ma bàyyi may ma jàmm nan laa mën a tëddee rek mii nii jaaxan ñu may vidéo ngeen ne man maa vidéo vidéo ma dugalu ma wax ñu ko vidéo nabu xanaa ki doon vidéo nga écarté say tànk noonu aju nangoo sa mbàjji war nga koo xam anabu nabu nabu ki la doon vidéo nga ngay say tànk noonu écarté sàngoo sa màjj te sa ñaari téléphone nekk en ligne xanaa xam nga kooku wax ñu kan la du Aziz du Waly bu fi tudd Aziz bu fi tudd Waly quatrième personne la bëgg nga tuddul ñu tur ñu def enquête yi rek may la jàmm loolu kay mën a tiwul de quatrième personne bi rek ñu enquête yi leer c'est de wala dafa jafe en Sénégalais yi li laaj dafa jafe jafewul de lu yomb laay laaj li may laaj de jafewul non police Sénégal des na barki Serigne Babacar si gis nga bu fekkoon bu fekkoon police Europe la heure bii fekk nañu jàpp na Nabou Leye nii nii may waxe génn fekk nañu jàpp borom kasket bi fekk nañu jàpp nday yërëm fekk nañ jàpp boogaa fekk nañu jàpp baram tent bi ñépp ñu ngi kaso xoolal dugg ci colocataire yi dëkkal jàpp fa quelques personne cinq wala six teg leen enquête yi leer ñu leen enquête yi leer ñu génnee ki rey ñu fesul parce que ci biir famille bi la ñu ko jege ñoom ñoo ko rey ñu ko xam ñoom ñoo ko rey nanu bàyyi dañ koo agressé fekk ko ci appartement rey ko rendi ko déedéet sàcc dugg fa appartement bi am na sécurité ndax am na ay caabi Aziz ku ma ubbilul buntu mun mënoo dugg ci biir demu déggu leen benn police ne leen danoo dajji bunt bi ah daal di koy rey déggu leen kenn ne leen danoo tëb fenêtre toj vitre yi daal di jaar ci biir rey ko déedéet buntu bi dañ ko ubbi nice comme ni ñu ubbee buntu nit waxtaan moom comme ni ñu waxtaani nit añandoog moom comme ni ñu añandoog nit ñu lekk naan boisson kafree ah rendi dog ci am ak nit complexe da cee am waaw ña fa fréquenté woon nag ci samedi bi jàpp ci dimanche bi ñoom laa wax ne leen police jëlis am naa ci droit wala aw ma droit wax loolu man maa ne ña ko fréquenté woon Aziz samedi ba dimanche nañ leen jàpp ñoom ñëpp ba enquête bi leer lii da laa wax ku ne di ma woo Aziz deful ñàkkul fayda xam na ñu muy ubbil ay ay buntu këram pour ñuy dugg agressé ko dugg ci këram rey ko mais déedéet kenn dajjiwul buntu kenn dajjiwul buntu kenn tabul fenêtre kenn tabul miir dañu koo rey rey bu simple bu nice comme famille entre xarit ak doomu ndey génn ci biti tëj poor bi ñu bàyyi ci ginnaaw noonu tëj ko sax jàpp tey jii rek tey buñ amoon caabi jooju rek ñoom jàpp nañ ki rey barki Serigne Babacar si fii Europe caabi jooju ñu bàyyi ci ginnaaw rek bu doon fii nii jàpp nañ ki ray ki ray Aziz Dabala bi mi ngi prison fenn du fii fenn fenn fenn du fii Aziz dee ci waañ bi ñu rendi ko daal di koy dëpp dëpp léegi pour nga dëpp nit faaw nga jàpp ko wëlbati ko wëlbati beeg jàpp bi rek bu doon Europe fii baa bu nu dayi du laa loolu yëpp dëgg la duñ moroomu kenn mënu leen a fexe ba Europe doon Sénégal fii du ñu ay nit ay dëmmu tubaab du nit fii moom barki Serigne Babacar si fenn du moom. fii de c'est nit rey nit daal rëcc ah man de Europe bii rey nit daw daal rëcc. li ma koy gis bariwul de wala boog est-ce que mas naa am fii kenn mënu féere ci ci rey nit kenn kenn kenn kenn eh Aziz dañu koo rendi <laughs> mais yéen sama gars yi nit kenn ko téye rendi ko noonu ah ah cela veut dire que doon na xeex ak moom Aziz bàyyiwul boppam ñu rey ko noonu de déedéet Aziz rey nañ ko de mais bàyyiwul boppam jot naa xeex ak ñoom jot na jàppante ak ñoom ñu dog koy rendi non non bàyyiwul boppam noonu rek ñu rendi ko noonu de déedéet jot naa xeex ak ñoom maanaam jote naa ak ñoom xeex ak ñoom ñu doog koy rendi bàyyiwul boppam nii rek ne nii rek ñu rendi ko